waaw man Djily euh, Abdou Khadre laa tudd euh, di benn nit ku xeebu rek euh, di ndonga daara jóge dëkk bu ñuy wax mbiri na Diop si Lambaye ñëwoon ci sama waajuru ji waajuru góor di def commerce ci beneen fànn boo xam ne bokkul ak lii mais yàlla dafa dogal nag maanaam bi ma nekkee xale ba léegi électronique mooy lii ma sa nekk sama bëgg-bëgg waaw loolu moo tax ma ma ciy gën a ma ciy gën a gëstu ba yàlla dogal ma toll ci fii waaw. waaw fii moom li commencé si iPhone 6S plus ba ci iPhone 13 fi mu yam fi ñu toll nii loo si bëgg am nañ ko ak qualité yoo xam ne ay authentique lay nekk jaay la ko mu am garantie ak ay chargeur original yoo xamante ne d'origine Apple lay nekk ay coque yoo xam ne ay d'origine lay nekk ay ay ay blindé yoo xamante ne ni tamit lépp soo ñëwee fii di ko fekk incha allah waaw lépp lu jëm si matériel électronique Apple daal boo ñëwee fii ci wàllu téléphone di nga ko fekk ak accessoires yi muy àndal incha allah. na ñëpp waajal te xam ne sax ubbil nañ benn boutique bu bees dinañ indaal tamit andi ay réduction yu am solo ci ci weeru koor gi euh, ci réparation yi ak ci vente bi parce que euh, yamuñu ci jaay kese wax naa ko ci commencement bi. Euh, képp ku am téléphone iPhone ak problème bu mën a nekk boo si ñëwee fii ak problème boo si mën a am am nañ ci ay solution incha allah tey it prix yu xéewal lañ leen defal euh, ba ngeen am li li ngeen si bëggoon te du ngeen te duñ leen du ngeen du ngeen am du ngeen tardé du ngeen def dara dañ leen toppatoo lépp incha allah. waaw waaw parce nit ki li muy def bu ko tegee si xam-xam du sonn du sonal boroom waaw parce que lii ñuy def nii ak médecine presque benn la rek. manam nit wuru ko lambatu rek non non da nga war am xam xam bu baax ci li ngay def lolou mo waral ñun tamit biñu dewe ba gëss ci am xam xam bu wër do ñew ak sa loxoy neen faaw nga andi matériel yi nga xamne mom ngay soxla ngir mëna def li nga bëgg te do sonu te do yakal kenn yëfum ndax microscope mo lay dimbali ndax bëtt mënu gis yenn affaire yu bari kon bu fekkee dafa am loo xamanteni ni bët mënu ko mënu ko àgg microscope moo la koy mën a xoolal nga am ay testeur yoo xamanteni ni mooy xam paanu téléphone bi fan la toll ak lan lay laaj waaw am ay appareils yi nga xamante ni yëpp dañ koy soxla euh, pour defar iPhone maanaam yëpp dañ koy dañ koy dañ koy am di ko gëstu di ko andi fii nga xamante ni yii boo ci amul rek bëgg a def euh, liggéey bu mel nii daanaka ci làmbutoog yooyu nga koy teg bu waane li ngay yàq moo ëpp li ngay defar mais alhamdulilah ñun moom duñ ne 100 pour cent am nañ ko mais 95 pour cent moom ci li ñuy liggéey ñu ngi am résultat incha allah. sagam téléphone yi euh, day changé bu njëkk plaquettes yi melul woon nii euh, parce que iPhone yi nii la nii la seen plaquettes yi meloon yi da nga doon da ci biir ci biir moteur bi. Euh, man a xool circuit yi nga war a changer yëpp nga def ko mais sagam tamit dañu dem ba génnee boo xoolee plaquette bi moom la ñuy woowee iPhone 11 Pro Max léegi circuit yi nga doon am fii ci ci yu njëkk yi mënatoo ko am léegi moteur bi dañ ko gën a sécuriser léegi pour nga mën a jot si biir loolu faw nga am appareil bi soo ko amul mënoo see jot da koy yàq léegi appareil bi moo lay man na may maanaam nga mën koo yëkkati décoller ko euh, ba xam fi paan bi toll nga def ci li nga ci war a def boo paree delluwaat ko loolu moo la koy may appareil euh, yi noonu la demee microscope mooy xool yenn boo xasee ubbi lii ba pare day am circuit yoo xamante ne nii maanaam bët mënatu koo gis léegi faaw nga am microscope bii moom moo la ciy dimbali maanaam ba nga man a xool loolu noonu boo defee nga xam ne boo ko doon suudee tey ak fer à souder euh, di nga ko mën a teg ni ni nga ko bëggee te doo ci am benn problème euh, en même temps yeneen appareil yi li testeur la moo lay xoolal ci la ñuy mën a sukkandiku ngir mën a xam jàngoro yi résistance surki ba xam bobu limi joxe baxna wala baxu mom tam dañuy dañuy dimbali bu baax suñu walu liggéey bi appare nak mom lañuy woy e copy sagam legi tamit iphone sagam ñom eh, dañuy dox faaw nga and ak ñom bo changer sen écran d'origine dafa am ben ben ben fonctionnalité bo xam dañ ko woy triton loolu li ñu si jublu mooy boo changé écran bi ñu xam ne changé nga ko léegi nag su ko doon changé écran bi faaw ma am machine bi ngir mën a copier programme bi defaat ko ci beneen écran bi mooy changé euh, nga xam ne nay mel comme ni mu meloon boo amul appareil bi loolu noonu doo ko mën waaw ak yeneen ak yeneen li tamit ngay seen ni euh, benn produit la boo xamante ne nii euh, da lay ci sa wàllu liggéey bu baax a baax bu dee moteur boo xam ne dafa am bouclage wala yooyu produit bi moo lay mën a may nga mën a gis loolu noonu ci gis bu gaaw te doo sonn peut-être sax ñu bëree bëri xamuñu xamuñu xamuñu njariñam ak li muy def mais lu lu efficace loo xamante ni maanaam moom gis nga day def nii après da ngay xam directement site ki nga xam ne ni moo bugg da gis day day andi yeneen affaire waaw waaw loolu la bu dee comme genre appareil yi ci ngay xoolee batterie ba xam baax na wala baaxul en même temps su fekkee batterie dafa dem ba nga xam ne dafa wàcc carrément moom moo koy moo a mën a déclenché waat waaw liggéey bi dafa ànd ak yëpp daal ànd naa yeneen yu bëri ah waaw yoo xamante ne ni maanaam mënul ñàkk yeneen yi ay liquide lay nekk yoo xamante moo lay dimbali yeneen yi programme yi machine yi lañ koy def ngir mën a def suñ liggéey parce que tamit panne bi day toll boo xam ne machine bi faaw moo la ciy dimbali moom tamit waaw ndax day dof comme ni ñu def lu même waar bi day dem ba faaw mu laaj nga programmé waat ko andiwaat ko comme ni nit di def des fois nga téléphone day fay nga taal ko moom daal même waar bu dof par exemple comme nit ku xëm daanu xel bi dem wala yeneen léegi nag faaw nga naxanteeg moom bu indiwaat ko ba vraiment waaw yooyu yëpp nag euh, du mën a ñàkk waaw moo tax lépp luñ jàpp ne peut-être euh, day gën a yombal si liggéey euh, dañuy def le tout am ko boo gisee ñëpp si ñu may waxal ak yenn réparateurs yi ñëw si man nii dama leen di gën a joyanti ngir ñu ngir ñu ngir ñu gën a mën a ngëstu liggéey bi bu baax a baax teg ko si teg ko si yoon bu yoon bu jub bi maanaam demee ci xam-xam dëgg waaw loolu mooy li nga xam ne nii mooy li mu gën a soxal ndax des fois client dina ñëw fii li may fay du ma arrangé wala soit man man xaalis bi sax du garaaw mais mu am mu am li mu bëgg man loolu mooy nekk sama fierté mooy nekk sama mbégte waaw tant que client yi nga am luñ bëgg rek man maa ngi kontaan nag euh, nga xam ne ñëpp ñoo safoo 100 cent Apple euh, bari nañ lool ñoom ñëpp tamit nañ xam ne 100 pour cent Apple ñu ngi leen delloo cant bu wér euh, di leen woo nag ci seen boutique bu bees bii nekkee Colobane ci robinet séeréer euh, ngeen ñëw ñu defaral leen li ngeen bëgg ci ay prix yoo xamante ni yu xéewale lay nekk di sant ñëpp waa équipe 100 pour cent yi ñu bari lañu parce que du man rek peut-être euh, man na la ñu wax ne maa nekk ci bopp bi mais équipe bu yaatu la boo xam ne ñoo nekk sama ginnaaw euh, di ma jàppale ba nga xam ne su ma fi jógee sax maanaam ni ma ko bëggee dañ koy defee nu kawee sama njort loolu tamit maanaam lu am lu am lu am solo la waaw noonu la demee ñu ngi leen sant bu baax di